Cheikh bàyyi Ndiaye borom solution ambassadeur peace and love moo leen di may seen série Kooru Boy yi ginnaaw ay tukkeem yi fasanti ko fu ne ci àdduna bi ngir yaatal ak dolli xam-xamam ñëwaat na fii ci Sénégal waaw Cheikh Baye Ndiaye borom solution guide spirituel the ambassador of peace and love ñëwaat ngir indi solution ci bépp problème koo koy borom solution yow mi am problème doon wër solution dëkk ma nopp bu dee da ngay wër yokkute ci lépp li nga doon yëngu bu dee wàllu kaaraange ngay wër aar sa bopp ba pare aar say bien bayre itam bëri mu ngi fi borom 1129 jinne yi ku nekk ak mission am xam nga ne moos lu mu sóoru daan ko adresse bi benn la cité Damel numéro téléphone bi 77 972 00 00 77 972 00 00 Cheikh Ba Ndiaye l'homme multidimensionnel kon boog ak Cheikh Ba Ndiaye seeni problème jeex na tàkk baax maa ko ñam ñamale. nga ma ñam ñamale. eh ñam ñamale. ñii ñam ñamale. dangay naan ba mu neex lu mu dolli sa yaram. ay dangay naan lekkala say la fraîche can it be garanti am na macaroni vermicelle ketchup mayonnaise petit pois ak spaghetti. c'est la fraîche. Ousmane ma yaakaar ni ndox mi naan te nga wàññi télé boobu. na def yaa doon sonné sànq ba léegi. waaw maa doon sonné yàgg naa fi. ay yow ma de damaa jàppoon. waaw ah, dëgg yaa ngi ci jàmm maa ngi ah, dama ñëwoon doo la yëgal si sama xew mi. dañ lay maye. waaw man dañ may maye waaw. Ah, waaw d'accord yow yaa dëkk fii ka ñoom Alima. waaw. kuñ lay may. man de xatu paaju boobu te mu njool ñu te xees. xaritu paajum waa lan lay may waaw te xees te njool nii kan na te mu xees te njool nii jara ay yow yàlla na la yàlla fay ay yow sa koor bi yàlla na am tiyaaba yow daal li nga bëgg suba ba ngoon jot yàlla na la ko yàlla ah amiin kooku wër naa turam gauche wër ko droite mënumaa fexe ba xam turam yow mii ki lay takk xamoo woon turam ku njool ki rek laa doon wax ak ku xees li ngay ree moom laay ree <coughs> jar na rek <coughs> waaw wuy ma sama fulla laa lay wax fu mu toll nii wuy ma paaju bu yeewoo nga waxal ma ko ñëwoon naa fi ndax moom moo ma war a maye te xamaguma datu maye <coughs> du yéen ñëpp ku ma sama datu mariage ngeen may reetaan di ma kokkali di def seen genre toog leen fii nag ba ma indi leen fi doom di ngeen xam yépp dëgg la saaga moo jaay jën mais noonu ci loolu bi di xànjoolu mu amul koy moolu life du noonu baleen ngeen foowee duma waxantu doxuma ci yooyu mais mère bi lii la ma expliqué ba pare bi muy ñëw nag ànd xëxët gu metti goo xamante ni si mënuma doon daw di wëri César te moom mère bi yow umpale woon waxoon naa la mook sama yaay ñoo doon ànd depuis temps xale ba sama yaay ni muy voyagé mère bi baax aimable nekk jàmbaar boo xamante ni si kenn mënu la ko expliquer léegi lan César lan lay daw ci loolu yaay ju jàmbaare jaay jën moo tax muy daw yaayam loolu complexe la walla lan la jàng xaw ma sax lan laay wax na dama ruus César amul sens. dina toog di ko regretter. nit a ngi xëy am envie dund ak yaayam passé ak moom des bons moments amu ko César mu am yaay ju jàmbaar yaay ju nangoo liggéey yaay ju baax ah man de sama yaay de su doon jaay jeej si nga jeej bi maa koy dagg naan ko tegal ni ma jaayal la li nga wax nag loolu rekk am complexe moo ko jàpp mais xam naa nu may def dinaa ko changer. jàng <laughs> dangaa bëgg sa yaay loolu ñëpp xam nañ ko mais jàng ni ma la déggee nii <laughs> xolay wax de. bu baax dangaa noog César jàng yow balaa nga la dugaloon ci César héritage am <laughs> bu ma wax lii waaye jàng wax ma leneen. waaw dëgg la dama ko bëgg man xaw ma kañ la. xaw ma sa jour bi man daal mën naa la ne moment yi mooy baata sama kër bi te sa xola mënumaa dund sans moom nga ni mais nag ma chérie t'inquiète pas man moom ndax yow mii sa wax ji noo jànq baaf da nga nag mais nag da leen laa lay conseil changé ko si changé jigéen mën na changé go ok li nga wax nii am na li ma si jàng te xola xam naa nu may def ba mu dama koy invité ndogu sama kër ndogu boo xam ne du ndogu ndogu boo xam ne du ndogu kooku de bis boo ko defee loolu dana la may riir kooku nga xam ne daa bëgg lekk xam nga ko gisoo biiram bi ñu mu ma lay mel <laughs> may biiru jàmm ah, gis nga ko dama wax dëgg jàng mais nag man moom leen naa lay wax xam nga man moom ku mu xam-xam maag sama kàddu damay sàmm sama kàddu te maire bi dama ne ko dinaa jàpp loxo César indi ko ba ci moom loolu dama la koy paasal. wuy ma yaa sama doomu ndey pour loolu t'inquiète pas bàyyi ko sama loxo may ki koy gérer. wóolu naa la gëm-gëm. ah man de xale bi yeex jàgg na ci wéccam bi <laughs> kii kay meer yàq sa waaye lii du mur muraake la di xalaas man dafa mënuma yàlla boole yéen naa teraanga fu ngeen ma fekk teral ma fara tëgg ci waan maar sama xaalis a ngi nii sama koppar sama ceeb sama diwlin sama niinal yow ma dara ndax yow saa yu ma la fekkee nga làmb jox ma yow bu doon saa yoo ma joxee samay baaraam dagg kon ba na gën maa nga pikkum du da ne maay sa maay niinal say ceeb tey moom maay neenal sa lépp ndax dafee nekkut man foo ma fekk teral ma loolu laa xam ci yow mus gis musumaa gis cawaan cawaan buy daw res tey damay daw xel waaye lu la dal nii tey lu ma dal teralati ma rek ma dem tey de xam nga dama lay bàyyu ma fa dara te loolu ma fa du ma lay teral dama lay toroxal bu naa def di yow nga fekk magum jëmm mu toog ne wuttu wuttaaral du jënd du dara jommi jëmee dem marché dara amu fa géer daaw ah, ko toroxal tey jii de dinaa la def togtu moom ah mhm. waa noonu gàtt na de dama koo yarut gis nga jaay kati jën boo gis nag bu wàccee bakkat fegu na maaleykum salaam ah yow lii sama wërsëg la. yow ci mën nañ la yónnee eh, eh, eh, yow Samba lekk katu mboro xabi nii donc nga nekk seen kër. fan nga jëm eh Maguette man sama xaalis ah Maguette ma sama xaalis yow eh waay Samba kii day lekk sama xaalis ah sama xaalis Maguette waaye ndaw sama xaalis damaa woo sonn nga jël sama xaalis màgget tey ma xaru waay màgget ah tey damay xaru waay xaru ah, xaru xaru xaru takk ba mu dëgër xaru xaru xaru ah damay xaru waay ah, sama xaalis waay tey moom sama tay baas bi bee mënoo nga koo gis tàng ak xat moo tax ma simbi ko bee bee bee pourtant maa ngi fii de li nga ma jox noonu laa doon laa ci laa nekkoon toujours juste mooy bi ñu may bëmëx ci piscine bi non mais c'est grave toujours xawoon naa chain nag benn moment quoi. parce que sama ennemi moom dugal ci ndox bi mais par la suite bi ma tooyee ak show yi ni ñu ma kiiwee noonu dama coow coow vite fait nag comme xam ma dama bëgg coow man dama bëgg loolu. kon naa la ngay fiir gis naa la ngay fiir mais jaratul fiir comme xam nga ay affaire yu vite fait cinq secondes yow bul ci fiirati quoi dégg nga. Eh, garaawul. li mënul bàyyi tëj saison bi. en plus. suñu daw yi <laughs> non c'était grave. dégg nga yow doo daw de bi da ngay fiddi. léegi nii nga mën a yëgati. non je te loolu taxul ma wolof dégg ah, nga. ana ana ndaw bi nga dressé ah nga bu clean ndogu bu dal jàmm ma ñëw gisuma dara loolu ay muusa heure bi heure ndogu la sa yaay moo tax ma woo la bii ok sama ban yaay ñaata yaay ngam mais yow lan la mooy sa problème loolu laa bëgg a xam mën naa xam yow lan ngay dawee sa yaay kàlla kàlla la ma xam lan laa daw. bee séeréer tuuti nga noppi déglu ma looy dawee sa yaay. suñu yaay dafa nekk loo xam ne dafa sax si xol am na ñoo xam ne amuñu sens bi nga am dund nañ seen yaay. mais yow yàlla may yombal na la ko ngay gis sa yaay patul dara jotu ko feebarul aussi lu tax nga koy daw day jaay jën. waaye jaayul yaboo ay affaire yooyu vendeuse de poisson la en plus léegi tëll lay jaay. c'est plus sûr quoi tëll. loo tax nga koy daw lan moo tax yow simple yow fu tax nga bëri tiitar. Oh. man mooy offensé nag. waaye léegi yow information yi nga am nii fan nga ko jëlee quoi parce que yow man xaw ma comprendre ma ay maire yab sax yooyu yëpp jege woo fu ñu koy waxee. information yi man ba ma la ba ma la bëggee laa xam sa lépp jaxaa moom ko wax. man Falick Dira moom lu ci yoonam sama vie privée ba muy ñëw di la expliquer affaire. Dira waruma wax dara yow Dira moo hébergé sa yaay wala nga xamul lool. moo ko hébergé te sama xarit la. am na droit wax ma dégg nga. attends Dira moo hébergé Kane bébé oh là mais léegi Dira moom nan la mën a hébergé sama yaay man à zéro mètre te yëguma ko man loolu. loolu lu mën nekk. sa loxo bu ma soo bañee ku ko héberger wala di xaar bañ koo héberger sax héritage boobu ngay pasar pasaree di maye xaj na ci moom jox ko ko te naa la xamal benn affaire bi nga sa yaay soo ko toppatoowul defoo lu war ci moom man dig ma ñàkk. koor geeg booy yi nuñ koy dundee dafa ñaaw pour ñoom life bi noonu la duñ ci musa noonu topp seen